bu ñu gisee ne Sénégal dafa nar a organiser ay élections présidentielles ci atum 2024 la ñu waxtaan ci li jëm ci wàllum bor bi ñu àbb lu bëri ngir mën ko compenser ci at bi ñu dëgmal la financement yu takk yooye nag dana tax ba boru Sénégal dana yokk ba yegg ci 72 pour cent ci PIB bi waaye nag at bi ñu dëgmal bor bi dana wàññeeku ba yegg ci 65 virgule 6 pour cent ci PIB bi.